Deus. peu partout à travers le Sénégal et encore une fois je dis aux États-Unis dem na au niveau de la diaspora wax dëgg yoo xam ne sax ko wax parce que xam naa ne dafa xool jeune mais c'est important li may wax am na lu tax lan moo tax ñu tiitoon kii Dio per il numero della tua strada, non è la résultat bi. kon nag loolu amoon ci introduction bi nga parce que effectivement on avait prévu de lire la texte sur son parcours exceptionnel mais bu nekk fi war a

Merci, Marguerite Beng. Monsieur Safai Oui. L'artiste de M. Abouazan s'appelle Jaman, qui va donner dans la Jaman. Monsieur Jaman, s'il vous plaît. que nag ñëpp a jóg taxaw ñëpp a jóg taxaw accueillir le la République s'il vous plaît en beaucoup d'applaudissements loxo yi loxo yi loxo yi loxo la vallée du fleuve Sénégal. Il y a juste quelques mois, j'avais pris la décision de me présenter à l'élection présidentielle tenue en avril dernier. Mon souci premier était de participer à un autre niveau et encore plus activement à la vie publique de mon pays pour contribuer à impulser une nouvelle dynamique politique dans un Sénégal à la croisée des chemins. Il s'est passé ce qui s'est passé, des obstacles dressés devant moi m'ont empêché d'aller au bout du processus. Aujourd'hui, La présidentielle est derrière nous. Mais devant nous, dans quelques semaines, une autre échéance, tout aussi importante que la précédente. Il s'agira, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, d'élire de nouveaux députés qui auront comme mission de voter des lois de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi et surtout d'y la, bouche et la voix de millions de Sénégalais. Attachés aux valeurs cardinales qui ont fondé notre remarquable identité sénégalaise, longtemps respectée et saluée en Afrique et dans le monde. Cette identité est la fondatrice et le socle de la plus précieuse de nos richesses, à savoir notre, vie en, notre vivre ensemble. Un vivre ensemble bâti sur le respect de la dignité humaine, l'ardeur au travail, la solidarité entre nous, la soif de savoir, le respect des institutions, la défense et la sauvegarde de nos acquis démocratiques. en m'engageant comme dans cette dynamique comme tête de liste de la coalition And Bessal Sénégal. Je veux servir mon pays comme je l'ai toujours fait. Je veux plus que jamais défendre et plus énergiquement un idéal de transformation sociale et de progrès économique. À partir de mon expérience, de mon vécu, et de ma conviction selon laquelle le secteur privé doit impérativement être l'une des clés majeures de notre développement. Je veux, avec tous ceux qui m'accompagnent sur ce chemin du devoir, donner le meilleur de moi-même et mettre mon expérience d'opérateur économique au service de la création d'emplois, de la création de valeur ajoutée de la création de richesses à distribuer pour donner à notre jeunesse, non pas que des mots et des paroles futiles, mais les moyens de sa dignité et de son sens de la responsabilité pour contribuer à bâtir notre pays et le pousser encore plus loin. Dans cette Assemblée nationale de rupture, de type nouveau. Nous défendons la liberté d'entreprendre dans la sérénité et dans le respect. Nous montrerons le chemin de la croissance, de l'équité, de l'inclusivité. Nous apporterons le meilleur de ce que nous savons faire, qui s'ajoutera à ce que d'autres savent faire. Et dans une dynamique d'ensemble respectueuse de nos différences, avec foi, intelligence et courage, nous forgerons un nouveau Sénégal. Vive la coalition And Bessel Sénégal. Sénégal. Vive la République. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum asalaamaaleykum ah mbooloo mi yaakaar na ne weddi moom gis bokk ci pour seet teeru bi ni mu xate ba tax ne mun ta teeru mbooloo mi buggoon ñëw yépp te may ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo mun te egsi Euh, di leen wu njëkk euh, di leen ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si biti ak ñi nekk seen kër yi que volonté bi ñu amoon ak bëgg-bëgg bi ñu amoon ak pas-pas bi ñu amoon bëggoon a fas yéene ñëw teew ak ñun ci bis bi te yàlla dogalu ko ñu leen di ñaan bu bés ba le 17 novembre ñu jóg. am jot bi yàlla may leen tal may leen fekkee ñu dem ci urne yi sànni ñu seen carte ñu dem assemblée indi fa assemblée bu bees tabax Sénégal bu bees li ma wax léegi ci jongante yi présidentielle yi weesu dama amoon yéene bokk ci ñu def lépp pour suñuy waxtaan ak suñuy mbokk suñuy xarit suñuy am di jàmm waane ñi fi jóge tegal ñu ay ndëgg sërëx yoo xam ne teguñ ko fenn daal jël écarté ñu mais ñu jàpp ne xëy na loolu la suñu borom dogal ñu gëm ko nangu dogalu borom bi par yàlla def ñu tas assemblée bi war a dëgmal ci élection yu bees mais ma bëgg a xamal mbooloo mi ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun di liggéey que assemblée nationale bi buñ ko xeeb assemblée nationale bi mun naa wax ne mooy deuxième tour élection présidentielle ñu jàppee que noonu gëmee que noonu te fas yéene demee noonu ñu fexe ba bu bis ba ñu jox ñu majorité à l'assemblée nationale ñu wan gaa yi ne leen mënuñu liggéey nit wax nañ ne liggéey da koy jàng waane da nga ciy am expérience maa ngi dégg ñu bëri di wax ne dañuy créer emploi dañuy def lii dañuy def laa ndaw yaa ngi chômer waaye boo leen bëggee xool wala ngeen gis kuy champion ci créer emploi mi ngi nii ci seen biir taxaw loolu laa gëm te di ko bantu di ko wax saay su nekk ah, may seedeel mbooloo mi ne man ba ma amee fukki at ak benn fukki at ak benn laa wax nekk xale bu ndaw laa xalaat doon tëdd saa su ma tëddee guddi bu nit ñi di nelaw man damay toog di gént di xalaat di xalaat ci sama ëllëg fan laa bëgg a dem lan laa bëgg a doon te boobu fukki at ak benn kese laa daan toog ñaar ñaari waxtu di xalaat sama ëllëg nan laay def ba yegg fi ma bëgg a jëm ma mës a am benn ambition mooy ambition ban ambition nekk multi milliardaire ma wax ko nëbbuma ko loolu moom mës a nekk sama mébét loolu laa mës a gëm saay su ma tëddee moom lay xalaat mu nekk sama objectif mu am lu bari lu mu laaj ay sacrifice yu dul jeex ut ay référence pour xam nan ngay def ci pour yegg ci yoon boobu ma ànd ci ak dàll ak yar ak tamit euh, gestu jàng lu borom xam-xam ba grec ba waxoon muy Socrate muy tudd ko ci grec muy ñuuti Séoton loolu sunu boroom xam-xam yi sunu maam yu tedd yi sunu wasi la ki ñu yaakaar àdduna ak alaxira muy Cheikh Ahmadou Bamba wax ko ci benn bataaxal bu mu yónnee woon euh, joxoon ko Serigne Fallou Mbacké sunu Serigne ak Serigne Mamadou Moustapha xamal leen ndaw day xam boppam kàddu yooyu ba mu tàbbee sama nopp laa ko jàpp moo tax ngeen gis ma ci melokaan bu mel nii ma ànd ak yar ànd ak dal ba pare gëstu man maay kan gëstu fu ma jóge xam maay kan xam lu ma bëgg xam lu ma mën xam lu ma jom xam lu ma war a def ak lu ma warta a loolu nag moo tax ba lu bari ma jombale ko sama bopp ñuy wax ñëpp ci man saa yu ñu xëyee nekk ci sama der bi di wax lu nekk loo xam ne dara du ci dëgg dara man képp ku ma xam xam ma ci liggéey ak jël li ma yàlla jox ko mu wërsëg ma ànd akook samay njaboot ànd samay mbokk ànd ak ko ñi ma yàlla booleel moo tax duma ci boole ñàkk fayda duma kenn aussi duma ci yàpp lépp lu may def fulla ak fayda laa koy booleel ma am ambition boo xam ne moo doon li ma leen wax léegi créer emploi mais créer emploi du rek ci Sénégal ba may mébét pour jóg di liggéey di tabaxal sam bopp bëgguma woon yem ci Sénégal dama buggoon tekk ci Sénégal mais du yem ma tekki bitim réew te loolu yàlla suñu borom defal nañu ko ba nga xamante ne tey macha allah ñi ngi employé ay sénégalais mais aussi ñi ngi employé vingt neuf différentes nationalités ñaar fukk ak juróom-ñeenti xeet yoo xam ne ñu ngi si àdduna bi di ay tubaab di ay xeet yu bari ci Europe ci Amérique ci Asie ak ci Moyen-Orient may wax suñu mbokk jullit yi ne emploi saoudien sax Arabie saoudi saoudien am naa ci ñaar ñu may xeel di ma gontal te pourtant nag Sénégal gii lañ jóge fii lañ bàyyeekoo fii lañ jàngee jàng bi aussi yàlla suturaal ñu defal ñu tawféex bien que ay jullit lañ bokk ci tarixa sama maam aussi jaxasoo woon ak tarixa yépp mbokkoo ak tiijaan yi ñu samay mbokki deret ma xam loolu gëm ko moo tax lu ñu def ma bokk ci dugal ci sama alal lu ñu am ma ñëw ànd ak ñoom di ko def ci tarixa yépp loolu tax li ma gëm muy li anglais di wax give back to your community bu la yàlla dimbalee ba nga tekki danga nga war a gëstu sa askan loolu ci laa nekk tey ci lay nekk suba ci lay nekk gannaaw ëllëg loolu laa gëm mooy sama ADN man képp ku may set ci social nga may fekk ci social nga may fekk ma bëgg aussi ndaje mi ñu am muy coalition bi ñu am di ànd beesal Sénégal ñu rassembler le maximum de personne nit ñi nga xamante ne ñoom seen yitte yépp mooy def social loolu laay ñaan loolu laay woote ka ñëpp fédéré ci loolu indi ñëpp ñu bokk xool ñi nga xamante ne social kese la ñuy dox moo leen intéressé ñu xëcc leen ci suñu coalition ànd ak ñoom ba li ñàkk bi am Sénégal ñu dindi ko fi. li may wax nag moom mooy distribuer de la richesse maanaam loo am te yàlla séddale ko nga séddal ko sa askan. loolu ci laa nekk ba benn diir. ah nit ñi ne ma nag ah Abdoulaye Sylla fi mu toll nii réew mi jaaxle nañ jaaxle nañ te fi ñu jëm ah xamuñu ko ma jóge woon fii en deux mille vingt laa fi jóge fekk ay tolof tolof ak ay ndëgg sërëx yu nga xamante ne ñi nga ko doon tegal ci sama liggéey. ci chef d'entreprise boo xam ne tu as 2000 emplois en 2020 nga nekk première entreprise de BTP du Sénégal avec un chiffre d'affaires de 52 milliards un carnet de commande de 350 milliards yàlla dénk la ko ngay xale nga fay doxal ay nit jóg ne lii xale bi war a ko def nañ ko faagaagal nañ nangu ay marché nañ ko toroxal ba loolu moo war ci sama bëgg jàmm ci sama bëgg Sénégal bu dal ma jël samay bagages comme man am naa feneen am naa kër New York boo xam ne moom foofu kenn du ko fa fekk kenn du ma fa fekk di ko toj ndax bi ñu tojee sama kër Saly il fallait que ma génn dëkk bi ndax amoon fu ma dëkk ma obligé euh, dem New York ndax man maa fi nekk nekk maag sama njaboot ndax liggéey bi ma am au niveau international damay dem ci dëkk yu bari du toog booy xool sax Dubaï laa gën a dëkk ndax mooy sama résidence mais sama njaboot ñu ngi New York mais loolu lépp liggéey bi moo ko waral ndax li ma doon ñaan yàlla ñaan bi moo nangu ba mun duma toog fii at il faut may génn bi ma génnee muy 2020 maa ngi fi ñëwaat en 2022 muy ñaari at yoo xam ne ak lu topp ñaari yu manqué yoo xam ne sama société daanaka dañ ko buggoon a tëj euh, ñii ci ci télé laay waxee ak rajo samay nit yi may liggéeyal xam nañ ne toog nañ liggéeyuñu waaye dama leen boo fay ba mu mot sëkk bi may dellu li nga xamante ne moo desoon ci bor yi ndax ba salaire yi jeex bi ma ñëwee li desoon nga xam ne xaalis bi nekk fi woon dama jëlaat sama xaalis lu day ci deux milliards six cent fayaat ko ay salaire lool loolu nag moo kooku nag bu leen waxee ne mën na créer emploi dana créer emploi ngeen war ko gëm te fii senegal fi ñu toll moom moo ñu war moo ñun ñëpp ñu taxaw takku def tout ba jigéen ñi ndaw ñi mag ñi ñëpp ku ci nekk am loo def may wax ne créer emploi bu ñu ci kenn nax bu ñu kenn nax bu ñu kenn sono bu ñu indil ay chiffres di ñu indil ay théorie di ñu indil wii mais loolu jëmul fenn man dama pragmatique gëm lu concret ku leen wax ne ci état état mën na créer emploi da leen di wax lu ko neex état du créer emploi secteur privé national mooy créer emploi moo tax ma fas yéene bu ñu yàlla dénkee majorité ñu fexe national ba nga xamante ne li nga xamante ne moom laa jàng Chine jàng ko Singapour jàng ko Dubaï nga xam ne bi ñuy soog di jóg ñoom dañoo dooleel seen secteur privé fexe ba cinquante pour cent ci li ñuy liggéey ñu jox ko seen secteur privé national loolu moo tax tey ñu yegg si fi ñu yegg si loolu moo tax tey ñu am ay entreprise yoo xam ne dem nañ loolu nag laa bëggal Sénégal loolu laa bëggal chef d'entreprise yi nekk ci Sénégal ndax man soxoruma tolluwuma fu may nekk naan maa ngi siis nit wala maa ngi iñaane nit ndax yàlla dimbale na ma waaye nag bu ñu yàlla dimbalee man lu ma gënaloon moo yàlla defal ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp tawféex yàlla jox ñëpp koom-koom ndax boobu ci la réew mi di gën a neex fiscale terrible nit ñi ñi ngi fay impôt et wax nañ ñi ci tubaab trop d'impôt tue l'impôt nasaraan yi ñoo ko wax ci science la te ku dem gis ko ñu fas yéene nag suñu yàlla yóbboo assemblée ñu fexe ba impôt yi ñuy imposer chef d'entreprise yi ak jigéen ñi entrepreneur yi entrepreneuses yi ñi nekk ci pêche bi napp bi agriculture bi ak des ak l'artisanat ak transport ak yeneeni secteur ñu fexe ba jàppale leen fexe ba ñu am accès au financement comme ni ko femmes yi bëggee bu ñu amee accès au financement ñu encadrer leen à travers l'Assemblée nationale jéem a voté ay loi yoo xam ne dana leen permettre encadrer leen ñu mën a développer seeni activité ba mu mun a am koom-koom boo xam ne danañ ko mën a denc ci banque yi ndax tamit mbokk yi euh, boru Sénégal bi ma fi déggoon fan yi ñuy wax mais bor boobu waa bitim réew ñoo ñu ko lebal mais balaa mu doon neex sénégalais yi am jël seen xaalis dugal ko ci banque yi ba bu nguur gi soxlaa xaalis sénégalais yi lay leb loolu mooy réew mu bëgg a jëm ci développement donc ñu bàyyi naxaate yi bàyyi iñaan bi bàyyi teg bët bi Sénégal dafa mel ne ku nekk boo jógee yaa ngi xool au lieu nga xool li nekk sa plat li ci nekk yow yaa ngi xool li nekk ci platu kële te loolu dara waralu ko dul ñàkk ñàkk googu nag mun nañ ko faj nuñ koy faje mooy ñu fexe ba sénégalais yi am accès o financement sénégalais yi di entreprendre sénégalais yi di créer seeni société di créer emploi ñoom ci seen bopp comme man mii ni ma ko defee man su ma ko defee xëy na junni ak junni ak junni junni sénégalais mën nañ ñu ko ëpp dañ leen a joxul opportunité yi rek mais bu ñu leen ko joxee ñu gëm naa ne danañ ko def ndax man musuma jël sama seede jox ko nit ne ko damay demande emploi te gëm naa ne sénégalais yi aussi ñi ci ñëpp loolu lañ gëm dañoo bëgg entreprendre seen bopp bëgguñu ñu leen di employé dañu bëgg yëngatul seen bopp amal seen bopp di jëfal seen bopp loolu nag laa bëgg bu ñu demee assemblée nationale ñu fexe ba loolu ñu jëmmal ko dooleel ko jox leen le pouvoir d'achat pour que ñu mën a accéder au financement jàppale jigéen ñi jàppale ndaw yi jàppale mag ñi ba lépp lu ñu bëgg ci réew mi yàlla dimbali ñu. ñu mun ci yegg ah fi mu toll nii nag am na leneen loo xam ne dañ naan balaa nga naan naam ne fa mooy liggéey koom balaa nga koy am day fekk jàmm am day fekk jàmm am cohésion sociale bi nga xamante ni moo amoon Sénégal nga xam ne sunu maam yi sunu sunu sëriñ yu baax yi ñoo ko fi sampoon sunu président ancien premier président de la république du Sénégal mu ñuy wax Léopold Sédar Senghor à bâtir un état tabax une nation ba nga xamante ni ñun ñëpp dañuy demlante di dikkalante nekk ay mbokk di kalante suñu biir loolu mi ngi bëgg dem mi ngi bëgg a naxsaay ñu nekk ci fitna. nekk ci ay détails loo xam ne du jëmale kenn fenn loolu nag laa bëgg à partir de cette élection ñu mettre un terme à ça tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne day dox ci démocratie du rek nit ki da ko contre boo xëyee convoqué ko bu subaa nga convoqué waat ko jiiñ ko nekk da ngaa yóbbu or or boo xam ne moom bañ ko yóbbu moom nekkul ci dëkk bi nit koo xam ne nekkul ci dëkk bi nan lay jëlee avion naan ma ngay yóbbu or loolu xam ngeen ne mënta nekk mbokk yi ñu tegati ci loolu doyul ñu tegal ma tuuma ne ma ku xam France nu mu mel ak restriction ya fa nekk ak li am maintenant sur le blanchiment nga xam ne ay réglu yu la nga ne nit mën na jóg yëkkati 2 million d'euros dem di ko verser espèce ci compte dégg gi sax dafay jigéen dafay jéggi dayoo loolu nit ku ko gis am expérience état buñ la joxee kayit googu danga nga ko war a xotti sànni ko xam ne kayitu mbalit la waane defuñu ko pour yàq sama der tilimal ma dañ ma ko tuuma waane nag man yàlla daf ma dimbale ba ah, sama sëriñ euh, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké Euh, Cheikh Ndiaye mi fi toog mat na ma seede ba ma fa demee doon yóbbu addiya ndax guddi laa fa doon dem benn benn guddi Cheikh Ndiaye miy toog dafa wax ak moom di ñaawlu tuuma yi yi ñu teg sama der sëñ bi ne ma tuuma yooyu wax jooju yëkkati ko kese la lay jural te loolu laa gëm ma bëgg nag à partir du 17 ñu ñaan sénégalais yi ñu jël seeni carte sànnil ñu ko ba mbooloo mi ma àndal ñu dem assemblée tabax fa beneen genre député boo xam ne li ñuy def mooy saytu nguur gi doxal nguur gi teg ko ci dëgg ak jub ak yéwén ak yéene nit ñi ñu am parce que man loolu mooy sama combat li ma bëgg mooy nit ñi am ba mun a teral seeni i mbokk teral seen i doom teral seen waajur tasaarewu aussi def di social ah engagement boobu nag mooy sama engagement engagement la boo xam ne ay nit wax nañ ma mënoon na la ci bañ a fekk man leen déedéet parce que sénégalais laa comme ñëpp bu sama réew soxlaa dama war a jóg bàyyi lépp lu ma doon def ñëw toog xeex ànd ak ñoom ba yàlla def li gën loolu moo ñu dugal ci lii ñu bëgg nag et di leen ko ñaan encore di ko ñaan askanu Sénégal fi ñu jëm ñu xool suñu coalition bu baax xool li ñuy proposé te xam ne ñun duñ leen nax tollu ñu sax pour di naxaate dëgg la ñuy wax dëgg lañ gëm politique du développement lañ gëm politique boo xam ne c'est dans l'action loolu lañ gëm ma terminer nag ci li gaa yi di wax euh, dañoo bëgg a jubbanti jubbanti nag moom ah danga war a teg ci njub lépp loo xam ne da koy def nga xool ci yàlla ak yonent bi nga xool xam ne nguur day jeex nguur day jeex ku weddi laaj ko ñi ki fi nekkoon te tey ñu dem feneen bàyyi ñoog réew mi ba ñeneen jël ko ñii ko jëlit nañ xalaat ne suba day jeex day génn ci seen loxo tàbb ci yeneen loxo ba lépp lu ñuy def ñu def ko ci dal def ko ci teey def ko ci teey te xam ne senegal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar te ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ loo fi def tey bu subaa di nga ko rëccu ndax bu subaa di nga toog wéet rëccu la nga defar donc lu ñaaw xaju fi nañ ko jël sànni fële te jëm ci li nga xamante ne moom la askan wi bëgg askan wi soxla ko muy nan la ñuy def ba coono yi ba jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu saafara ko te leen di wax ne ñu ñii de boo leen di dénkee seeni carte bu soobee yàlla ak yonent bi ak mag ñu baax ñi nga xamante ne ñooy suñu yaakaar fii ak fële danañ ko def ni ngeen ko bëgge tegal leen ko ci yoon yu baax ba nga xamante ne doo leen ci am lu leen metti doo leen ci am loo leen di rëccu ëllëg ma leen di ñaanal nag que ñi nga xamante ne ñëw nañ fi yàlla yóbbu leen ci jàmm ci seeni njaboot buñ demee aussi moo dóor bi benn la wax ak njaboot yi wax ak mbokk ñëpp moo door bi benn la nañ tànn coalition ànd beesal Sénégal jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci merci président Abdoulaye Sylla wax ji rafet na macha allah communication bi jaar na 100 pour cent macha allah am na yaakaar ne askan Sénégal bi yëpp waaw waaw tous les élus élus yëpp Jimmy Zigambi pour la séance de photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Attention, là.